أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala toll ci suratul baqara di jël tey aaya 256 257 ñaari aaya yu nekk sunu kanam yu ñu borom bi subhanahu wa taala di xabaar ginnaaw ba mu ñu waxee màggaayu ayatal kursi yu indi nañu xabaar ne am na lenn ci waa ansaar ñi dëkkoon madinatul munawwar ñoom ba ñu duggee ci lislaam dañu ñëw di forcer lenn ci ay yahud ak lenn ci ay nasaraan chrétien ci seeni doom pour ñu dugg ci lislaam yàlla daal di wàcc aaya bi di leen ko tere mu ne fa inna ahlal kitaabayni mu ne ñaari ñoñu téere yahud ak nasaraan wa man shaabahahum ak képp ku nuroog yahud ak nasaraan nuxazu minhum aljiziyata dañuy jël ci ñoom impôt ndax seen dañoo saxal seen diine kenn du leen forcer fal force jël jaas yi ne danga leen di rey pour dugg leen ci lislaam waaye impôt la ñuy jël ci ñoom mu ne kenn du leen forcer lu dul ñoom ñu am coobare wu ginnaaw bañ leen convaincre waxtaan ak ñoom ñu daal di ñëw tuub amma alwasaniyuuna bu fekkee nag ñi jaamu xërëm walladina laa diina lahum ñi nga xam ne amuñu diine ay bokkaalekat lañ ak ay yéeféer lañ ñooñu moom dañuy xeex ak ñoom forcé leen ba ñu dugg ci diine kon aaya yi ñu war a jël tey mbokk yi bokk na ci lim ñuy jàngal mooy diine ji di diine lislaam kenn du ci forcé kenn pour mu dugg ci rawatina bu bokkee ci ñooñu kitaab ñi joxoon téere beneen bi mooy aaya bi am na yenn ci borom xam-xam yu koy man suuxal ne aaya jihaad daf ko man suuxal waaye li wér mooy aaya bi man suuxaluñ ko ci muhkamaat la bokk bokk ci nañ ci ci li ñuy jël tey ba tey mooy dinañ jàng ci aaya yi ne islaam léppam njub la dinañ ci jàng aussi lan mooy laa ilaha illallah dinañ jàng ci aaya yi nekk sunu kanam ba tey lan mooy taaxut te mooy xërëm dinañ jàng ci aaya bi ba tey yàlla subhanahu wa taala far gi mu farak way gëm yàlla yi nekk seen wali waaye dinañ jàng ci ay borom bi tabaraka wa taala dimbali gi mu taxaw di dimbali ñooñu gëm yàlla kon lii ci gàttal mooy sunu dars tey moom la ñuy jëlee ci ñaari aaya yi 256 ak 257 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالأروة الوثقى بالأروة الوثقى لا انفسام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون borom bi subhanahu wa taala mu ne laa ikraha fi diin kenn du forcé ci diine ji laa déedéet ikraha ñuy forcé fi diin ci diine laa yukrah al mar'u kenn du forcé nit ala duxuli fi diin ci forcé ko mu dugg ci diine fal force bu fekkente ne dafa bokk ci ahlul kitaab waaye bu dee dafa bokk ci yahud ak nas ak nasaraan dañuy waxtaan ak moom fexe ba convaincre ko amma bu fekkee ci bokkaalekat amul diine dañuy xeex ak moom bu fekkee ci ñoñu kitaab nag waxtaan la laaj waaw kon bu dee jullit la nag naka la jullit di gàddoo jaas yi ne day jihaad ak jullit ah léeg-léeg nga dégg leen ci waa Sénégal yi dañu war a jihaad léegi bu ñu jihaadee ku ñuy xeex ak ñun question laa leen laaj tey ñun bu ñu doon jihaat fii ku ñu xeexal ay jullit jullit yu réer rek sànku jullit yoo xam ne dañ leen a réeral kon li mu laaj mooy daawa ñu woo leen waxtaan ak ñoom leeralal leen mbir mi ba mu leer naññ naññ nañ ñu bàyyi li ñu nekk ñu ñëw dund diine bu set bu leer nañ borom bi ne kon lu ñuy def mu ne wa innama yutanaqahu bi iradatihi dañuy fexe nit ki ba convaincre ko ci bëggeelam ci nammuteefam waxtiyaarihi mu tànn ko su ko defee bu fekkee yahud la wala chrétien suñu waxtaanee ak moom ba convaincre ko mu ñëw daal di tuub amma gàddu jaasi ñëw fal force loolu moom l'islam santaane wu ko aaya baa ngi nii mooy laa ikraha kenn du forcé fi diin ci diine diine kenn du ci forcé nit mu des beneen lu war a leeral kenn ci ñun mun naa diine ah diine kenn du ci forcé nit a baax nga dem tëdd di nelaw julli jot comme ni góor gi defoon rek doomam nekk jullit dem France jàngi def fay at yu baree baree bari daal di delsi tëdd fajar jot góor gi dem jàkk daal di koy fëgg mu ne ah kookan la mu ne ko papa bi ne ko jógal julli mu ne ko laa ikraha fi diin papa ji ne ko qu anfusakum wa ahlikum naaran qu anfusakum ahlikum naaran su ñuy wax aaya bi mooy ñan ñoo tax ñuy wax ñi dul jullit amma ñi jullit nga nekk sa njaboot ah loolu sa warugar la murru awlaadakum bi salaa wa hum abnaa'u sabaa wadribuhum alayha wa hum amnaa'u ashara muttafaqun alayhi yar leen seen doom ci julli juróom ñaari at bu ñu lànkee fukki at na ngeen leen caw xale bu am fukki at julli wala ñu laa war a caw yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo joxe ndigal googu loolu day wane ne kon bu ñuy wax ña nekkul jullit a tax mais ña nekk jullit mu nekk suñu njaboot loolu dañ ci am responsabilité boo xam ne day jar wax day jar yedd day jar mer yenn saa yi sax mu jar dogoo waaw yenn saa yi da koy jar Abdullahi ibnu Omar am na benn doomam boo xam ne da ko mere ba dee waxul ak moom ndax Abdullahi ibnu Omar dafa tàngoon waaye ku taroon la ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw wàcc na ci kaaba gi mu dégg ñuy nettali ne yonent bi ne ndeysaan bi mu ajee aj gu mujj dafa wéeru ci kaaba gi mu ne fan la wéeru woon gars yi ne xamuñu ko de mu simmi mbubbam mànto bu ci kaw dese bi ci suuf di wéeru ci kaaba gi naan nii di teg di teggi maanaam day mesurer fu teg teggit di ko kole ba kaaba gi wër ñu ne ko lii nag mu ne damaa bëgg sama ndigg wéeru dal fu ndigg yonent bi daloon ndax bëgg bi mu bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam borom bi ne laa ikraha fi diin diine kenn du ci force lu ko waral xat ca dëgg-dëgg tabayyana leer na ar rushdu njub al huda njub al mawsulu ila saada yoon dëgg njub gi wone yoonu texe wal ikmaal gu mat sëkk njub gu dëgg gu mat guy wone nit bu ci jaaree day texe leer na wala leeru xat ca dëgg-dëgg tabayyana leer na lan moo leer ar rushdu njub nee na fàng amatul nëbb lëntul kon ku sànku rek yow yaa sànk sa bopp waaye njubal yàlla li leer na naññ naññ naññ naññ dara nëbbatu ko mooy li yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam indi ku ko fi bàyyi jaar feneen nag yow yaa alak sa bopp moo tax mu ne alhuda almawsul ila ila saada njub gi eggal nit ci texe yoon woo xam ne boo ci jaaree doo soo ko wàccul dugg àjjana loolu leer na loolu mooy ar rushd qad tabayyana rushdu min al ghayy yàlla nee na subhanahu wa taala sunu boroom te dëgg-dëgg yoonu njub feeñ na min al ghayy ci mbewte lan mooy ar rushdu lan mooy ghayy mooy ab dalaal mooy cànkute tey benn misaal bu gàtt ku taxaw ci buntu jàkka ji dégg ñuy tafsir nga jéggi tali gis stade bi fees dell ñu taal projecteurs yi ñu ne la ñaar ñi ban mooy njub looy wax kuy tontu pourtant leer na de ñaata nit ñooy romb fi di dugg fee pourtant leer na de soo nee benn waay fii yal na nga fi dee mu ne la gis nga yow moo ko waxati yow gis nga yow yow yow bañ ko ma bañ nga yow xam nga ne fii baaxul nga naan ma naa fi dee te pourtant mu ngi fay soldaalam di dem wala leer na nañ ñun ñëpp xam nañ léegi dëgg gi ñun ñëpp da ngay gis yenn saa yi ku romb dara ah lii de mooy dëgg walaay lii de dëgg la moom. nga gis ku romb caaxaan xam ne du dëgg mais mu ñëw toog àll leen ma seize waxuma loolu sax mais danaan lu tax bi ngeen koy bi ngeen def lii waxu leen ma ko yéen boolewu leen ma ci koñ bi ci koñ bi laa bokk bu ngeen defati tànn biir naa ko yëg ñaata yoon ngeen di dégg loolu wala na ngeen ma laaj sama cotisation ma joxe mais ak a néew ku naan waaw bi ngeen di tabax jàkka ji. lu tax laaju leen cotisation lu tax lu tax lu tax wootewu leen yéen da ngeen xëy rek mel na yéen ah yéen ah lu tax doo dégg loolu kon dëgg yàlla nee na dafa leer naññ naññ naññ loolu mooy ar rushd rushd suñ la lay mooy lan mu xal mooy yoon woo xam ne ku ci jaar boo wàccul da ngay texe yoon wu mat sëkk woo xam ne ku ci tegu soo wàccul da ngay texe dugg aljanna te texe mooy dugg aljanna loolu mooy arrushd alxayi mooy lan ad dalaal mooy cànkute bu nga xam ne bu ci doomu aadama duggee wala mu tegu ci da koy yóbbu ila shaqa ci texee di wal xusraan ak perte lépp lu ndi di dugg muy egg ak yow perte ak texee di bu yeboo nga xam ne lu baaxul la même buñ ko tuddee diine même buñ ko tuddee diine même bu ci ay nit nekkee ne diine la wala ay kilifa di ko woote maadaama yoon woowu fu muy teer ak nit mooy day texee di day alku baaxul du dëgg lii dëgg daal mooy yoon woo nga xam ne yàlla wax nañu ko fu muy teeral nit mooy day baax day texe day dugg aljanna loolu mooy yoon wu baax moo tax mu ne xat ca dëgg-dëgg te bayyana leer na nañ ar rush du njub minal xëy ak mbewte ñoom ñaar boo leen doon comparé ñoom ñaar ñëpp leer nañ ku nekk xam nga ban moo ban moo ban ban nga war a jaar waaye nag seytaane xam na ne lii mooy yoonu dëgg waaye day fexe ba nit ñi duñ ci jaar waaw day fexe ba taaral leen lu bon zayyana lahum seytaanu amalahum yàlla nee na faman képp koo xam ne yakfur weddi na bi taaxuuti xërëm yi képp ku weddi xërëm wa yu'min billahi mu gëm yàlla ah kooku lan la def mu ne faqat ca dëgg-dëgg kooku de istamsaka jàpp na bil urwatil wusqa ci buum gi dul dog tey ngeen wax ji ah faman yàlla nee na képp koo xam ne yekk fur dafa weddi lan la weddi ak taaxut xërëm ndeke kon boo bëggee gëm yàlla fa nga weddi xërëm tey nag Sénégal Sénégal mooy réewum xërëm lépp foog xërëm bokk lépp laa wax nag foog xërëm bokk yenn saa yi sax am na jàkk yoo xam ne buñ leen di rëdd foog xërëm ñëw dañ rey nag bi ba pare waaw place bi ñuy samp jàkk ji nañ fi rey nag bu ñuul bi doo gis loolu doo ko dégg Sénégal mooy dëkku xërëm lépp xërëm la xërëm la nit ñi gëm maanaam xërëm bi ci deretu nit ñi la nekk bu njëkk ba nit ñi bu ñu tuubee dañuy bàyyi liñ daan def ñun dañoo tuub continuer doo dégg yenn saa yi benn waxkat benn borom xam naan ne Sénégal tuubeen lañ ñun tuubagun parce que tuub mooy la nga nekkoon da nga koy bàyyi ci jamono Omar ibnul Xattaab ci Égypte dafa amoon benn dex goo xam ne dex gi chaque année pour ndox mi génn bëri ball tooyal dëkk bi nit ñi bay dañ koy neexal xale bu jigéen bi gën a rafet ci dëkk bi nga xam ne musta sëy jànq la dañ koy feetal solal ko ay or solal ko yére yi rafet litt ko ba mu rafet fuddan ko tusngal ko maquillé ko def ko ba mu rafet teg ko ci gaal gi yóbbu ko ba ci digg dex gi tëmbal ko foofu dem yoon dem seen yoon su ko defee rabu dex bi lekk ko su guddee rek ndox mi ñëw bi lislaam ñëwee Égypte ah jamono ji jot ñu ñëw ci ki toogaloon amirul mu'minin ne ko ah ñun nag amoon nañ benn aada de mu ne lu doon aada dëkk bi ñu wax ko ko mu ne xaar leen ma bind Omar lettre ma laaj ko ndax loolu dañ koy def wala duñ ko def bind Omar lettre Omar bi lettre bi yegsee mu liir ko mu yéemu mu baa di jël këyit mu ne maa ngi leen di wax ne sama lettre bi bu ñëwee na ngeen ko jël ba fi ngeen doon tëmbal xale bu jigéen bi ngeen tëmbal fa lettre bi lan la bind ci lettre bi mu ne yow dex gi bu dee ndox mi ndoxum yàlla la ñoo ngi lay wax ne ñi ñi ay jaami yàlla lañ bu dee ndox mi nag ndoxu rab bi la ñoo ngi déclaré rab bi guerre ci kanamu yàlla ëllëg ah mu ne lettre bu ñëwee tëmbal leen ko foofu lettre bi daal di ñëw ñaari jël dugg ci gaal dem ba foofu daal di fay tëmbal guddi jot ndox mi daal di ñëw tasaar ko kenn reyul benn xale bu jigéen mais ñun nag ah ba léegi ñoo ngi tuur soow ci guy yi ba léegi ñoo ngi rendi doo dégg ñaanu ndakaaru ndakaaru dañ koy ñaanal ñu jël ay nag yóbbu ko ci géej gi rey ko gisu leen loolu foog ñu ñaanal ndakaaru da ngay toog fi jékki-jékki rek rajo yi ñu ne génne leen sarax dégg ngeen démb ñu xam ñu noon àdduna dafa waroon tukki démb kon ne ñun am nañ sens ndax ñun tey ñu ngi tafsir ñu leen àdduna day tukki ah wala déggu leen démb information boobu kon ba léegi ma ne nit ñi dañuy jaamu ay xërëm démb benn waaye nee na ma oustaz damaa fanaane julli damaa tiit guddi gi dama ko julli ma ne ko inna lillahi ma ne ko mbaa suba di nga julli mu ne ah dinaa julli de waaye xam naa ni ma jullee woon keroog moom wala nit ñi gëmuñu yàlla ba léegi pas-pas yi dañoo des pas-pas dañoo des jullit warul warul tiit ndax yow man xiyaam teel wala suba la xam nga loo war a tiit ndax yaa ngi ci njub wala nekkoo ci loolu nga war a tiit mu tax saxaaba yi tiituñu woon ñoom dañuy dee wala deewuñ xam nga ñoom lan lañ doon tiit ñu dee te deewuñu ci lislaam moo tax yàlla mu ne wala tamutunna illa wa antum bu leen dee rek lu dul ay jullit ngeen loolu moom importance bul dee lu dul jullit nga ana la ubali hiina uqtalu musliman mu ne waa ji nee na keroog bañ koy rey mu ne man faale wuñ ma bañ may rey ma déedéet xam nga man lan laa faale mooy biñ may rey naa nekk jullit buñ may rey naa nekk jullit rek sama yoon ci leneen luñ ma ndax dañ may daggate wala dañ may rendi non na fekk est-ce que biñ may rey nii jullit la loolu mooy problème tey xërëm dafa bari bari bari bari bari ba laa ilaha ak bida ñu néew ci ñun ñoo ci mucc ñu néew ñu néew ci ñun ñoo mucc ci xërëm réew mi yëpp genn wàll gi xërëm la soo demee ministre yi président bi xalifa diine yi député yi sénateur yi yëpp ay xërëmkat lañ moo tax gis nga xërëmkat yi ni ñu amee doole Sénégal xoolal làmb ji làmb ji lan moo ci ëpp doole xërëm xërëm xërëm bu ci xërëm génnoon léegi làmb ji tas mais xoolal xërëm bi ni mu amee doole xoolal rajo yi xërëmkat yi niñ ci amee doole xoolal télé yi xërëmkat yi niñ ci amee doole lu ko waral mooy ba léegi taaxut lañ weddiwul te daa ngeen aaya bi lan la wax weddi la wax de weddi fa man yakfur kon fa nga weddi da ngay weddi moo tax baat yi nga xam ne soo weddee moom ngay saxal mooy laa ilaha illallah boo weddee ba pare mu ngi mel ne ci wax bu gën a leer mooy balaa ngay lal looy def balaa ngay lal da ngay bale bala ngay lal da ngay bale ba mu set gis nga moo tax yàlla mu ne laa ilaha da ngay bale loolu mooy bale illallah mooy nga la walal nga doog a samp bala ngay samp da ngay dindi buddi loolu mooy laa ilaha illallah laa ilaha mooy sempi illallah mooy samp léegi nag yow nga ñëw sempi woo bëgg a samp du dem du taxaw loolu mooy sunu mbir Sénégal xërëm dafee bëri xërëm dafee bëri bokkaale dafee bëri ñii dañuy da ngay gis ilimaan ilimaan buy sang bu am xàmb billahi lazi la ilaha illa huwa ilimaan bu am xàmb da ngay gis jàkka boo xam ne jàkka ji buntu jàkka ji xàmb moo fa nekk xàmb bu ngeen doon jóge nii di dugg dëkk yi di dem nii booru géej yi ah cim da jàkka joo dem ca wetu jàkka ji xërëm baa ngi foofu xërëmu dëkk ba waaw dañ koy ñaanal ni ñuy ñaanee ci jàkka ji noonu la ñuy ñaanee ci xërëm bi ba pare ñu ne ñun ay jullit lañ jullit du am xërëm jullit du am gàllaaj ana yeneen ñu ne gàllaaj yéen du ngeen takk gàllaaj yéen du ngeen naan du ngeen sangu yéen li ngeen def lu dangereux la yéen xamu leen réew mi ngeen nekk dëkk bii da ngay jóg boo jógul dañuy jóg sa kaw dañuy bëri boo bëree ñu daanu sa kaw boo bëri xamu nu ñu koy waxee am na benn terme bu ñuy wax waaw boo bëriwul ñu bëri daanu sa kaw loolu lañ lay gëmloo boo bëri daanu sa kaw man dama dul fekkee fu ñuy bëree sax nag c'est ça le problème bu leen fekkee fu ñuy bëree loolu mooy wax ji ñaan yi yonent bi di wax doy ñaan yi doy na wala doy ñaan yi yonent bi jox doy na wallahi ñaan yi ku mu aarul dara du la aar benn jinne dafa jàpp benn xale bu jigéen ñëbbu ko ci benn borom xam bu tudd waxit abdou salaam baali mu koy mocc di ko mocc ba caaga jinne ji yuuxu ne ko su may bàyyi ndaw si ci yow laa jëm di ko jéem a menacé su ma koy bàyyi ci yow laay dugg mu ne ko sama yoon nekk ci de waaye daal xam naa ne man li ma xam xaw ma ci mën ngay dugg xaw ma foo jëm waaye di nga bàyyi ndaw si moom ba caaga rek jinne ji jooy mu ne ko looy jooy mu ne ko damaa xam ne bu ma génnee ci ndaw siit mënumaa dugg ci yow mu ne ko lu tax mu ne ko parce que yow bi nga xëyee ñaan nga ñaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ban ñaan la mu ne ko bi nga xëyee wax nga laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu lmulk wa lahu lhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir ñaan boobu ku xëy wax ko fukki yoon ñun jinne duñ la mënal dara mu ne ko sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moo wax dëgg yaa na ñun buñ xëyee la ñu def inna atayna kal kawsar fasalli li rabbik wanhar ah ina saaneega wala afkar wala nga gis ñu naan nii di tere wala yor sengoor balaa ngay génn sa kër da nga yor benn buum bu xonk bu am bu weex bu kii daal di koy def fii fa say naahum fahum laa laa laa nga ñëw gauche gauche droite laa laa laa kenn xamul ki kenn gëmul yàlla boo géey bala ngay génn da ngay tuur ndox ci buntu kër gi oto bi da nga ciy tuur ndox boo demee table bi di laal da ngay tuur ndox bureau bi da ngay tuur ndox fi mu ne nii ku demoon sa bureau fekk ñu teg fa ñetti nen doo liggéey journée boobu doo liggéey journée boobu doo liggéey oto ngay jël di wër dëkk bi di seet kan moo kan mooy ñoo wax la lii lan la billaay billaay lazi laa ilaaha illa huwa gis naa jigéen ju ñu nomee ci benn poste mu war a dem ubbi foofu rek toog ci bureau bi mu ne jamais fokk ñu indi borom xam-xam mu dindi li nekk fi ñu ne ko lu fi nekk mu ne ki fi nekkoon ñun xam nan ko ma ne ko yóbbu leen ma fa ma jàng fa yaasin mu dañ bureau noonu lañ ko noonu lañ ko bàyyee ñu ne kenn du fa dugg ndax ki fa nekkoon dafa dangereux loolu mooy la ah nan leen yàlla dafa sutura borom bi subhanahu wa taala mu ne faman képp koo xam ne yakfur dafa weddi lan lay weddi bi taaxuuti xërëm yi lan mooy taaxuut a taaxuut kullu ma surifa an ibadati llahi taala min insanin aw shaytanin aw gayrihuma taaxuut su ngeen jàngee usulu salaasa lan ñoo fi jàng usulu salaasa ci jàkk ji lan la lan la firee taaxuut lépp lu ñu jaamu te du yàlla wala wala wala cinq la juróom la wax borom usulu salaasa lu mu wax juróom yi bu njëkk bi
koo xam ni dañ koy jaamu mu xam koo xam ne yow dañ lay jaamu te waxu doo waxaw nit ñi bu leen ma jaamu man du ma yàlla yow xërëm nga loolu am na fi wala amu fi ah nga gis nit ki nit ñi ñëw di la jaamu nit ji di la rek simi daalam simi mbaxanaam diraam ñoo ne ngor poñ sa kanam loolu yàllaa ko moom yàllaa moom toroxlu googu terewa ko nit ñi waxoo ee ee jógal taxawal normal yonente bi waa ji bëggee ñëw rek mu ne ko ee ee dalal dalal lan la yaay Muhammad mu ne ko waaw léegi nag bu ma nekkee Muhammad nag man kenn laa ci jaami yàlla yi ñaar yi laay dundee mooy ndox ak tàndarma dalal dalal gis nga daal di delloo waa ji waaye bu doon fi waa ji day bàyyi rek waa ji di raam di dof doflu ñëw toog ne nguj du ko wax dara dégg naa benn waaye dafa ñëw ni xujj sëñ bi di xool bañ a xef mu ne ko foo dëkk mu ne ko ñàkku rab mu ne ko yaay seen rab parce que ay dof lan lay def dof lan lay def yaa nii yëpp dof la diifu nit yonent bi alayhi salaatu wasalaam wallahi li tax mu réussir mu am 124000 sahaaba kenn wax ko yow yaay yàlla parce que dafa tolloog ñoom bu ñëwee fekk fu ñu toog mu toog lu ñuy lekk mu lekk li ñuy sol lay sol fi ñuy tëdd lay tëdd moo tax kenn déporté wul ci moom ne ko yaay yàlla waaye xoolal fii booy lekk doo lekkandoog nit ñi boo yéegee oto sax yow kenn yaay ne ci ginnaaw oto bi 4 places yow kenn benn nit lay yóbbu 4 places benn nit li ngay sol kenn du ko sol yenn saa yi sax doo simbi sa dàll ci sijaada yi ñuy jullee day ñëw di ci dëgg ñëpp suñu seen dàll yow nga ñëw dosaas daal di ci dëgg yonent bi dafa woon loolu yonent bi da daan xëy rooti ca teen ba ñëw fóot ay yéreem raxas ay dàllam tuuri mbalit sallallahu alayhi wa sallam te moo gën ñëpp mais loolu lu tax mu ko doon def pour jàngale loolu moo tax borom xam-xam yi naan yonent yëpp kenn mun leen roy yonent yàlla Muhammad rek lañ mun a roy lu tax ñu mun ko roy ci lépp lañ ko mun a roy naa leen jox ñetti yonent rek laaj leen ci ay question di nga gis am na lu ñu leen mënul roy Ibrahima alayhi salaam est-ce que mën nañ ko roy yoroy ci nu mu yore woon réew ah mën nañ ko roy ci nu mu yore woon réew lu tax yorul woon état Seydina Muhammad dafa yoroon état muy Madinatul Munawwar d'accord ngeen Isa alayhi salaam mënuñu ko yar roy ci nu mu yore woon soxna nu mu nekkee woon ak soxna yi lu tax amul soxna gis nga gis nga gis nga Moussa alayhi salaam mënuñu ko roy te ni mu doon yare doomam lu tax amul doom yonent bi moo tax lépp ci moom la daje dafa yoroon état yor ay soxna yor am ay do- yor doom yor ay àndandoo commerce def tout sàmm lépp la def moo tax ñu mun koo roy lépp yàlla ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon képp koo xam ne yow dañ lay jaamu waxoo nit ñi bu leen ma jaamu yow xërëm nga gis ngeen ak lan ah ki wax jaamu leen ma kooku xërëm la ak lan mu ne ak koo xam ne tamit nanguwul àtte woo àtte àttam yàlla képp ku nangoowul àtte woo àtte lislaam yow xërëm nga dégg ngeen léegi kon ñu lan lañu àtte woo fi xërëm inil hukmu illa lillah soo gisee yenn borom xam-xam yi naan tawhid ñaata ñaata xaaj la borom xam-xam yi xaaj tawhid fii fii ñaata ñett ñett gis nga ñi garaaw ñi dañu ne ñeent la da lañ ci génne mooy tawxidul xaakimiya inil hukmu illa lillah atte yàllaa ko moom kon ku wéetalul yàlla ci tawxid mu siri nga te yàlla kenn luñ ko ci taw ci ci hukmu te yàlla nee na inil hukmu illa lillah atte maa ko moom justice bi lu tax mënut a normal depuis Senghor ba léegi lu tax mënut a normal parce que joxuñu ko yàlla lu neex nit ñi la ñuy def ki ku toog rek lu la neex ngay def lu la neex ku toog nga indi say avocat indi say magistrat yu la jege loo bëgg ñu defal la waaw ku la may bët ko ne nga yàlla nag inil hukmu illa lillah atte bi yàllaa ko moom yàlla xoolul kenn lu ko arrangé waaw dëgg bi rek la ñuy jëfe kon foog ñu weddi xërëm xërëm mooy lépp loo xam ne dañoo soppi jaamu yàlla yu yóbbu ko ci loolu moo xam doomu aadama la moo xam seytaane la moo xam leneen ak lu mu mën a doon xërëm la xërëm gis ngeen ndox yi ñuy xëy di sotti ci buntu kër gi xërëm la parce que dañoo jàpp ne buñ ko ci sottee am jàmm am jàmm te yàlla mooy maye jàmm xërëm la ah tukki yi ñuy tukki di rëdd nga gis ñu ne la rëddal juróom-ñeenti rëdd boo demee ba ñëw bind fukk loolu xërëm la lam yi ñuul yi ñuy takk suñu loxo yi lam yi xërëm la parce que lam bi lan lañ la ci wax
Eh, ah.
daf lay aar xërëm la pettaaw yi xërëm la ndombo yi ci ndigg yi xërëm la ci mbagg yi xërëm la téere yi ci baaru oto yi xërëm la béjjén bi ci buntu kër gi xërëm la parce que da nga yaakaar ne am na lum la mënal jural nga bàyyi yàlla loolu xërëm la ci yow loolu nag yàlla mu ne fa man yakfur bi taaxut képp ku weddi xërëm soo weddee xërëm looy def wa yu'min billaa mu gëm yàlla gis nga da ngay weddi gëm kooku day gëm yàlla faqat ca dëgg-dëgg istamsaka kooku ngoy na yàlla waxul jàpp de istamsaka mooy ngoy xam ngeen luy ngoy déedéet loolu sax tuuti na ngoy ku rëcc 19e étage doon daanu daal jàpp ci buum lu muy def da koy jàpp ni ak ñaari baaraam nu mu koy jàppee ah ku nekk na wax nu mu koy jàppee bu doon yow la nooy jàppee buum bi ñaari loxo kese ñaari tànk kese ku rëcc 19e doon ñëw dajeeg bi buum téye ci buum gi yàlla loolu la wax loolu mooy al istimsaak loolu mooy ngoy waa ji dana laxas ci buum bi téye kook ñaari loxo yi képp kook tànk yi matt loolu yëpp dina ko def pour lan parce que xam na ne bu rëccee dee loolu la yàlla wax loolu mooy al istimsaak mooy dañuy ngoy ci buumu yàlla gi lan mooy buumu yàlla gi mooy lislaam gis nga yonent da doon orienté sahaaba yi naan leen addu alayha bin nawajis matt leen ko seen dernière dëgëj diina ji fii lañ koy matt fii buñ bu mucc waaye nag bu la tubaab naxee ne la islamolog nga lok sa diina boo ngaa ngee mu dëj yàlla dana woon yonent bi dana woon matt leen ko tubaab yi ñëw nañu lok leen ko lu ñu matt ak lu ñu lok lan mooy gën a gaaw a wadd kon boo nekkee l'islamologue islam bu ñu log fu mu jëm du dem borom bi ne faqad istamsaka kooku de ngoy na bil urwa ci buum allahu akbar xam ngeen buum googu mooy lan mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah wallahi képp ku jàpp ci laa ilaha illa muhammadu rasulullah mbokk yi rëcc nga wallahi képp ku jàpp ci baat boobu laa ilaha illa allah muhammad rasulullah rëcc nga àdduna wallahi rëcc nga àlaxira moo tax yonent bi ne man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah daxal aljanna képp kuy dee faatu di wax mujjee wax baat boobu dugaa jana baat boobu la ñu yónni yonent yi nañ ko saxal fépp benn baat boobu mboolem yonent yi depuis aadama ba yonent yàlla muhammad benn baat boobu la leen yàlla yónnee wa laqad arsalna fi kulli ummatin rasul an ibudullah wajtanibu taaxut yàlla nee na xeet bi yëpp yónnee naa fa yonent pour nañ jaamu yàlla nañ bàyyi xërëm ñun ba léegi bàyyiwuñu xërëm uudi uudi uudi uudi yi ba léegi ñu ngi ëw ay ndomb yoo xam ne boo koy ëw doo sol daal boo koy ëw doo jublu penk boo koy ëw doo sol tubéy boo koy ëw jant doo la tiim boo koy ëw doo gis naaj laa ilaaha da ngay gis ku indi téere ne ko téere bi 4 heures du matin lañ koy ëw mu ne la moom tamit jox ma cinquante mille wala boo koy ew doo sol tubéy wala loolu loolu ndomba ndomba jàmm la loolu téere jàmm la loolu ban façon téere la ba léegi nee naa leen xërëm yaa ngi des ba léegi xërëm yi ñu ngi des te yàlla dana nañ ko weddi suñ ko weddee lu ñuy def mu ne ñu jàpp ci tawxid mooy laa ilaha illa allah muhammad rasulullah na leen yàlla jubal mu ne buum goo xam ne lan fi saama laha du dagg du fecceeku bëggol ngol ngol tajata ngol firtotaa ko ngol tajata firtotaa ko ko keng wi mooy buum boo xam ne du fecceeku xam nga buum buy fireeku baaxul buum buy dagg baaxul mooy buum bi mooy laa ilaha illa allah ku ci jàpp jeex na wala ñi ci jàppoon Sumayya keroog bañ ko ne weddil yàlla mu ne laa ilaha illa muhammad rasulullah ñu rey xoolal Bilal xoolal ñoom Ammar xoolal ñoom Musab xoolal ñoom Omar parce que dañoo comprendre woon lan mooy laa ilaha illallah ñu jàpp ci mais xoolal ñun ñun ba léegi sax baat bi mënuñu ko wax wala lenn ci ñun mënuñu ko wax bëri na nga gis jullit buy dem jàkk guddeeg bëccëg mënul wax laa ilaha illallah lu muy wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah waxuma la sax loolu waaye ci ñun fii dañ ko ñu bëri ñu bëri mbooloo mu nekk da nga am noo koy waxee mbooloo mu nekk kër diine yi ku nekk da nga am sa façon laa ilaha illallah hmm? wala wala wala bu fekkee da ngeen a bëgg a weddi loolu ma indi ma indi ko léegi ku nekk ma indi sa bos billaahi wallahi bu ngeen ko weddee ma indi ko façon kër gu nekk da nga am sa façon laa ilaha illallah bu fekkee am na fey kenn ci yaaka ji ko weddi ma ma ma indi ku nekk ku nekk sa bos ku nekk da nga am noo koy waxee sa air noo koy woyee nu bokkul ak beneen airu jullit bi pour yow pour ñoo ne yow yow kër gi nga bokk fi mu nekk nii yow ngay jàpp rajo rek nga dégg ñi nga ni ah ñii de ñoom diw la noo ko xamee parce que ñoom ñoo moom air boobu façon boobu loolu du diine laa ilaha illa benn kese la ba nekkoon màkk mu war a ñëw fii mi ngi mel ne am naa musaali mus naa mus naa gis benn waaye bu dugg ci jàkk rek julli jot mu jël micro bi allahu akbar allahu akbar waaye ba pare rek benn paa ne ko gis nga sa noddu màkk yi fii du màkk eh noddal yow fii du màkk ah ay yow ah, fii du màkk eh lan lay noddu màkk noddu màkk daa am màkk bi màkk dañoo moom noddu bi suñ ñaawee Qur'an lu muy wax
ah waaw gis naa imam boo xam ne xëy na am na ñu nekk ci jàkk ji mun nañu maa dëggal imam boo xam ne ñi ko doon nasiha dem ci moom di ko laaya biir naan ko di ngay jàngal alxuraan mu ne eh di ngeen di jàngal alxuraan ak ñun du benn loolu la tontu te imam la mu ne yéen di ngeen di jàngal alxuraan ak ñun du benn waaw bu leen jiite woon tey gee yéen ñëpp di ngeen julliwaat gis nga ay affaire u Makk ay affaire u Madina ay affaire u Samba Demba loolu amul ci lislaam lislaam lépp benn la benn façon kese la julli gi ay ràkka la bu dee bu ci nekk am na na nangamu ràkk weer wi nangam la julli gi nangam la alquran bi nangam la jeex na dafa am yoon nag wu ñu tërale lañ koy jànge dafa am ay ahkaam ay atte bu ñu yaakaar ne rek ku nekk loo neex nga wax wala déedéet dafa am yoon dafa am ay règle yu yàlla yonante bi jàngale ne nii la borom xam-xam ne nii la ku ko bëgg a baaxal nii ngay def waaye ñun bu fekkee ne dañ ñu ne même booy aji màkka sax nga ñëw di tàggu sa kilifa mu ne la boo demee bu fa xool dara mu ta jottu toon huunde yaa ngarta wala du loolu lañ leen di wax soo demee bu fa jëlee dara demal ñëwaat fii lépp a ngi fi fii lu fi ne waaw ñu ne fii lépp a ngi fi bu fa jëlee dara soo demee bu leen xool ne loolu lañ lay wax billahi wallahi taala am na ci Sénégal nit ñoo xam ne wallahi alazim boo demoon di leen tàggu ne da ngay aj maa danaa bu fa jëlee dara fii lépp a ngi fi gis nga bu fa dem di xool ay na loolu mooy la foofu la mbir mi jóge ñun buñ ci jotee fa la jóge fa la mbir ma nekk amaakinul muqaddas yëpp fa la nekk ku fa dem jëlee woo fa dara doo fi indi dara ku fa dem ñu ne la bu fa jëlee dara wallahi doo fi indi dara moo tax mu ngi ni lan lañ gis ay ujaaj yoo xam bu demee sàcc lañ fay nekkee ñii nelaw ñii wër ñii ñii billahi wallahi dem leen yal na leen yàlla yóbbu màkk ngeen gis la fa nekk waaw amoon naa benn borom xam-xam bu ma daan wax ne booy aji bis bu la yàlla dimbalee ba ngay aji bul ànd ak waa Sénégal ba ma ajee laa ko xam billahi boo àndee ak moom di nga xuloo di nga xeex daanaka doo jaamu yàlla lu ne di nga ci dugg man gu nekk di nga ko gis loolu est-ce que diine la kon nan leen ragal yàlla tuub jéem a jaamu yàlla sellal xam ne diine bi la ya imaam Malik wax li yàlla wàcce woon démb mooy diine tey jii mooy diine bu ñu jëlee bëggee jël beneen yoon dañu sonal suñu bopp rek ñu ngi nii bañ ko jéemee ba léegi dañoo tële parce que démb damay liir lan mooy suñu différence ak saxaaba yi alfarqu baynana wa bayna sahaba wallahi alazim mu ne alxuraan bi defaroon saxaaba yi moo nekk nii ñun alxuraan boobu lañ yor lii nga tiim lii la Aboubacar tiimoon moo ko baaxal Omar Ousmane Ali Aboubacar ah Bilal Ammar Khadija Zeynab Roq ñii lii la noonu baaxaloon ñun ñu ngi nii mënuñu mënuñu mënuñu mënuñu baax te mu ngi nii suñu wet ñu ne lu tax lan moo tax ñoom lii baaxal leen ñun lii mënuñu baaxal maanaam ñoom dañoo amoon ci lii yaqiin di ko dund di dund texte yi gëm ko ñun nag xam nga lu ñuy tiitaru diw mokkal na téere bi ak a neex baat waaw mokkal na ñeenti riwaaye yi saxaaba yi téerewuñu woon tiitaruñu woon ndax kii mokkal na ko wala saxaaba yi li ñuy bëri bëri bëri dañuy lim ñu mokkal alxuraan wala dañuy lim ay baaraam diw moo mokkaloon ak diw ak diw cent vingt quatre mille dañuy lim ñi mokkal waaye ñi ko doon jëfe ñoom ñëpp loolu lañ doon pro- profité jëfe ko ñun nag ñun ñii dañu koy tiitaroo di jàng ñii di jamb ñii di takk ñii di naan naan naa ayatul kursi yu bi kii xëy na la sangoo naa ko kii ne la suuroo naa ko kii ne la ñeenti ayatul kursi yu mu ngi fii ci sama ndigg li waaw loolu amul benn njëriñ waaw dund ko saxaaba yi dañ ko doon dund wallahi alazim dund mu mel na ci ñoom feu rouge xam nga waa ji doon joxe misaal ci loolu lu mu wax mu ne kuy weddi li ma wax jàngal aaya bi ba keroog ba aaya muuraay wàccee ñoo wane ne gars yi dañ doon dund aaya yi aaya muuraay wàcc fekk jigéen ñi xëy ñii dem ci teen yi ñii dem marché aaya bi wàcc seen ginnaaw ñu ne jigéen dafa war waratul def bopp neen ci dëkk bi jigéenu jullit waratul def bopp neen benn jigéen benn xale bu jigéen mu daw jëm marché ba wëri yaayam pour wax ko ne yàlla nee na jigéen bu mu def bopp neen mu ñëw fekk yaay ji taxaw mu ne ko yaay alxuraan wàcc na ci yonent bi yàlla nee na jigéen bu mu defati bopp neen ndaw si taxaw ne doom ji dawal dem kër ga indil ma lu ma muuroo mu ne ko nan dem ba yegg mu ne ko mukk comme dégg naa ko fi du ma fi buuse lu dul ma jëfe ko doog a dem am na ñoo xam ne dañoo rooti woon bañ leen ne muur leen dañoo xott seen seen sëri ci suuf ba mu mot ñu daal di takk seen bopp yi doog a dem kër ga nag pour lu ñu muuroo ah aaya boobu kañ la wàccoon septième siècle xanaa aaya boobu waa Sénégal dégguñu ko fi mu nekk nii ñun boo demee suñu kër yi da ngay def jigéen ñëpp def bopp neen te xoolal moo tax ñu mën a ñun ak ñoom du nekk benn ba yowmal qiyaamati ñee léegi xoolal bi ay yàlla ne bu leen naan sàngara dañoo jël ndaal yi di ko indi ci mbedd yi di ko toj teew teew bi naaj bi tàngee borom xam-xam yi nee nañ ndax sàngara su bëri ci mbedd mi am na ñoo xam ne bi mu leen xeeñee dañoo màndi ndax lu mu bëri xet gi bi mu bu bëri ndaal yépp lañ toj ne allahumma antahayna minhu yàlla pare nañ ci ñun nag ba léegi ñu ngi naan ba léegi ñu ngi ubbi ay baar am na baar boo xam ne sax fii ci tabaski bi lañ ko bi bisu tabaski fii nii fii ci ginnaaw jàkk ji fii ba léegi ñu ngi naan kon du benn du benn ñooñu loolu mooy seen ñu ñun dañ doon dund aay dund dund lii jàng ñu ko woon rek wala def ko nii wala dañ ko doon dund seen deret kon mënuñu mel ni ñoom dañ ko doon dund ñoom borom bi mu ne subhanahu wa taala képp ku jàpp ci buum googu nga xam ne du fecceeku du dagg na nga yëg ne yow day gëm nga yàlla yaa ngi doog a gëm yàlla wa man yu'min billah faqad istamsaka bil urwati lusqa lan fisaama laha mu ne wallahu yàlla samiun aji yàlla aji dégg la alimun aji xam la léeg-léeg bu ñu firee aaya ba mu jeex dinaa leen fàttali li boroom xam-xam bu mag bi doon wax Saïd Hawa rahimahullah da daan wax ne bu ngeen jàngee alquran ba mu jeex na ngeen bàyyi xel aaya yi fu mu jeexee aaya bi fan la jeexee yàlla nee na damay dégg sami ku aji dégg la yemal foofu samir yàlla day dégg est-ce que kon war ngaa waxati lu lu lu mu lay jéppee comme day dégg samiun yàlla nee na damay dégg est-ce que war ngaa waxati laa wax lu mu lay jéppee bu dee yàlla nee na dama lay dégg maa ngi lay dégg yow mii tey bu ñu bu ñu président doon dégg lu ñuy wax lu ñuy wax ci moom ah bu ñu sëriñ xalifa tijaan yi doon dégg lu ñuy wax bu bu bu bu murid lu doon dégg lu ñuy wax su la sa papa doon dégg looy wax su la say mbokk doon dégg looy wax su la say doom doon dégg looy wax yàlla nee na sami waaye alim man damaa xam de lépp laa xam tamit nag sax wa xamuma lii lii des lépp kon yàlla bu dee day dégg te ku xam la kon nañ def lu leer nañ def lu wóor waruñu nëbbatu nit ñi di tooñ yàlla ndax yàlla nee na maa ngi leen di dégg te xam naa leen samiun alim mu ne allahu yàlla bàyyi na léegi loolu ñëw na ci leneen allahu yàlla waliyu mooy kilifa mooy waliyu ah, waliyu mutawallihim bi xifzihi wa nasrihi wa tawfiqihi waaw léegi damay poser benn question waliyu waliyu ci Sénégal mooy kan kan moo may tontu kan mooy waliyu ci Sénégal waliyu waliyu waliyu ci Sénégal lan la mooy koo xam ne ci ñun boo ko ziyaare jee da ngay toog beneen façon toog boo dul toog sa biir kër alaysa kazalik nga def attention yaa ngi yaakaar ne li ngay xalaat xam na ko wala wala da ngay def attention ci man li may xalaat ni est-ce que xam na ko parce que kii waliyu la ni ma toogee naa ko defar parce que waliyu la su may wax naa wax ndànk parce que waliyu la wala fii waliyu mooy mooy ku ñu wax ne nitu yàlla la alaysa kazalik waliyu fii mooy ku ñu ne nitu yàlla hmm? waaw léegi ndax yàlla mën naa nekk waliyu nit nekk waliyu seytaane nekk waliyu kon lan mooy waliyu dafa am ay tur ci arab kenn firiluñu ko moo tax ñu nax nit ñi juróomi tur ci Sénégal kenn firiwu ko dañ koy bàyyi ci arab bi noonu rek boo ko déggee di ko ngandal nga defa ne dara la fekk du dara waliyu bii ci la bokk Cheikh Samba wax waliyu la la waliyu waaw waliyu ñu ne la muqaddam la cheikh la shérif baat yi kenn firiwu ko ci Sénégal même jàkka ji li ñuy wax jumaa ji bu ñu jullee pare adaaya shérif shérif bi day laaj adaaya maamam ak beneen baat bu mujj bi juróomeel bi mooy hadiyi hadiyu baat yi juróomi baat yi du dara du tus lan mooy hadiyi hadiya mooy lan mooy cadeau est-ce que cadeau force la cadeau du force ba ñuy takk rajo yi naan indi leen ko ñu koy laaj nga dégg sëriñ sax ndax indi ngeen addiya yi daayira bu indiwul bu kenn wax turam ci rajo bi maa ko mës a dégg billaahi wallaahi taala du tus loolu du force joxe cadeau day neex nit di arab la ñuy laak la ñuy jàng de fi mu nekk nii bu dee du dëgg rek wax leen ma du dëgg ba di ma wax bu fekkee tekkiwu loolu wax leen oustaz dangaa jumbi mais kenn du ko tekki dañ koy bàyyi noonu su ko defee yow ko nga koy ngandal dafa ne dara la fekk du dara beneen bi mooy shérif shérif mooy lan ci arab mooy ku baax shérif kullu taqiyin shérif ku baax rek shérif nga bu dee sirif mooy yàqkat yàlla nee na kulu wasrabu wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin léeg-léeg ñu ne indi leen adaayi sirif jox leen yàqkat yi seen cadeau ngeen génne seen xaalis joxe loolu lañ leen di laaj di yàq yi adaayi sirif jox leen yàqkat yi seen cadeau ngeen génne joxe nee nañ ñoom yàqkat lañ yàlla nee na kulu wasrabu wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin ñaareel ñetteelu baat mooy muqaddam muqaddam ci arab lu muy teg mooy ku jiitu te iza kaana hunaka muqaddam la budda hunaka an yakuna muaxar bu fekkee dañoo jiital nit bu fekkee dafa am ñu ñuy jiital il faut am ñu mujj kan mooy nangu mujj diw muqaddam la sàngam moo ko muqaddamal mooy jiital nañ ko rek loolu loolu ci ci ngan la diw lañ jiital loolu dafa am lu ngande mais nee naa la diw muqaddam muqaddam la laa la wax mu i juróomi ñaar téeméeri at a ngi ni muqaddam la waaw loolu lu ci nekk beneen baat bi mooy lan cheikh cheikh mooy màgget cheikh mooy màgget cheikh mooy màgget cheikh du dara lu dul màgget cheikh diw mooy yow màgget bi diw loolu mooy cheikh amul leneen ñu ne dañ koy seexal mooy dañ koo màggetal yow màggetal bu ñu la seexalee mooy yow màggetal nañ la def nañ la màgget xam nga loolu crime la ah ndeysaan ay waay yàlla na yàlla jubal beneen bu baat bi nag mooy baat bi tax ñu jóg muy waliyu waliyu mooy gis ngeen ci tafsir bi mooy mutawallihim mooy ku yore dara jàkka ji am na waliyu kuy waliyu jàkka ji muy imam bi quartier bi am na waliyu kuy waliyu bi chef de quartier bi dëkk bi am na waliyu kuy waliyu bi président bi Macky Sall mooy waliyu bi loolu mooy waliyu waliyu mooy koo xam ne ëllëg mbir mi yow lañ koy laaj ku nekk sa kër waliyu nga fa yaay waliyu ci kër gi yaa yor mbir mi sa loxo la nekk yàlla nag ñi gëm yàlla subhanahu wa taala mooy seen waliyu allahu waliyu lazina amanu moo féete mooy farandoo ñi gëm yàlla waliyu mooy péete koo fi ku féete dara allahu yàlla waliyu lazina amanu yàlla mooy péete ñi gëm yàlla bi hifzihi moo leen di sàmm ah wa tawfiqihi moo leen di may jàmm moo leen di aar allahu yàlla waliyu lazina amanu lu mu leen di defal mu ne yuxrijuhum daf leen di génne min azulumaati ci lëndëm yi lu tax chaque jour ci alquran da ngeen di gis borom bi subhanahu wa taala buy wax lëndëm du indi benn ay lay wax lu tax dafa bëri politique lëndëm la parti yi ñaata parti moom Sénégal yëpp lëndëm la lu dul laa ilaha illa muhammad rasulullah rek lëndëm la xërëm yi lëndëm la po bi lëndëm la sàngara si lëndëm la njaaloo bi lëndëm la loolu yëpp zulumaat yàlla mooy génne jullit yi ci zulul zulumaat yooyu lëndëm yooyu fu mu leen jëmee ilan nuur wala benn la di leen yóbbu ci leer leer gi mooy lan mooy lislaam mooy njub jeex na wala benn kese la amma lëndëm yi nag lan la dafa bëri lépp lu dul njubal yàlla rek lëndëm la gis ngeen moo tax zulumaat la yàlla di wax ila nuur benn pourtant waroon naa wax ilan anwaar ci leer yu bëri déedéet mais amul sens kon ndax lan njubal yàlla moom benn kese la mooy dëgg mooy laa ilaha illa muhammad rasulullah lu dul loolu rek lëndëm la mu ne wallazina kafaru ñi weddi yàlla nag ndeysaan ki ñu doon jàngal danoon wax inna alladina joo gis kafaroo topp ci seeni borom xalku nanu baa bi loolu lañ daan wax inna alladina joo gis amanoo topp ci seeni borom texe nanu ndeysaan yal na ko yàlla yërëm wallazina gaa yi nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla awliyaauhum gis nga seen péete ak taaxuut mooy xërëm yi baat bi ñaata noonu lañ ko jàng tey xërëm foog ñu weddi xërëm te ñaari yoon yëpp dafa ànd ak weddi weddi weddi kufru képp koo xam ne jaamoo yàlla ci xërëm nga nekk moo tax mu ne wallazina kafaru gaa yi weddi yàlla awliyaahum seen péete ak taaxut mooy xërëm yi lu ñu leen di def mu ne yuxrijunahum dañ leen di génne minan nuuri ci leer gi fu ñu leen jëme ila zulumaat ci lëndëm gi ci lëndëm yi Oustaz wali mën na doon tam kii xërëb parce que dañu ne wali fi ñu ne awliya fii mooy. wali yu bari xërëm yu bari kon wali mën na doon xërëb.
mu nga xërëm ñaana taag borom bi ne ulaayika ñi ashaabu naar ñooy ñooñu safara li leer na de ulaayika ñi gaa yi mel nii jaar ci yoon wi ashaabu naar ñooy nitu safara hum ñoom fiihaa ci biir safara xaaliduuna dañ fay sax ëllëg duñu génn xaaliduun dañ fay sax kon su yàlla ne nit ñi safara lañ jëm dañ fay sax jeex na ñun waxuñu ko de yàllaa ko wax wala li du alxuraan xaaliduun la yàlla wax dañ fay sax du ñu génn éternellement loolu mooy xaaliduun hum fiha xaaliduun aaya bi mbokk yi ñaari aaya yi dinañ ci jële juróom benn mbir ci hidayatul aayatayni bu njëkk mooy laa yukrah ahlul kitaab ahlu kitaabayni wa man fi hukmihim kal majuus wa sab an idduxuli fi lislaam illa bi ixtiyaarihim wa tuqbalu minhum jiziya mu ne képp ku bokk ci yahud ak nasaraan kenn du la forcé ci diine lislaam ak majuus ak ñu mel ni ñoom mu ne waaye non comme majuus mu ne majuus ak sa ñooñu naan saabiin ñu ne ñooñu dañ leen di forcer amma ahlul kitaab yi nee na dañuy jël ci ñoom impôt waaye bu dee majuus yi ak ñeneen ñi dañ leen di forcer xeex ak ñoom dugal leen ci lislaam waaye bu dee ñeneen ñaari kuréel yooyu ñu waxoon sànq ñooñu kenn du leen forcer majuus mooy animis mooy kuy jaamu xërëm loolu mooy majuus saabiin mooy ñoom ñu laaj lay dañuy jaamu biddiw mu ngi ci suratul baqara ci commencement yi passé woon nañ ko ñaareel mooy al islaam kulluhu rushd islaam lépp njub la xoolal mbokk yi lislaam bu jógewul woon ci yàlla sax nit ñi war koo gëf war koo war koo jëfe lislaam lu mu lay xool leen li lislaam tere lan ngeen ci gis lu baax wax leen ma ko damay laaj fii ci biir jàkka ji li lislaam tere lépp ku ci gis lu baax sàngara ku ci gis lu baax xoolal kilifa màndi jóge këram di darti darti xale yi topp ko di ko sotti ndox di ko sànni xeer mu dem àll ba ci tubayam wala mu ñëw fekk yaayam toog mu bëgg a war ci kawam loolu bu ko lislaam terul woon it xam ne ne kii lim def baaxul la tàqaleeg sa xel ba nga bëgg a sëyeeg sa yaay wala nga sëyeeg sa doom bu jigéen li la tàqalee xel ba nga ñëw ci def loolu nga njër jikko rabu àll loolu bu ko lislaam terewul woon nit nit waru ko def wala njaaloo wala njaaloo nga judd amoo baay ndax loolu rafet na ku nekk am baay nga ñëw ne yaay yaay kuy sama pap mu ne la sa papa daa tukki fan la tukki mu ne la yii moom de ba mu tukkee ba léegi bañ naa ñëw nga xamu fu mu nekk nga jàpp loolu gëm ko ba benn bis rek ñu ne la yow amoo baay te moo bàyyi sa yaay di la nax loo koy yëgee lu neex la mu ngoog wala yow bi ngay juddu judduwoo ci yoon waaw gis nga loolu ni mu méttee xoolal carte xoolal sàcc xoolal jëw xoolal rambaaj mani lislaam li mu tere lépp ku ko xool rek da ngay xam ne lii lu ñu war a bàyyi la lépp nag laa wax lépp lépp kon nag même bu fekkoon ne du diine bu jógee ci yàlla sax nit ñi war koo gëm nag mas samaag nag ba mu jógee ci yàlla nekk programme pour ñu dund ko moo tax mu ne kulluhu rushd lislaam léppam njub la lislaam amul lu nit di def ñu naan cam ah waaye cam waaye loolu de dëgg dëgg jaaduwul woon wax leen ma lan la amul amul ci lislaam amul lislaam léppam dëgg la amul lenn lenn lenn lu nit di def di ko for kulluhu rushd mu ne wa ma adaahu dalalun wa baatil leneen lu dul lislaam réer la neen la ñetteel mooy ataxalli an irrazaili muqaddamun ala taxalli bil fadaili bàyyi lu bon moom lañ jiital ci def lu baax balaa ngay def lu baax balaa ngay def lu baax da ngay bàyyi lu bon ba pare lan mooy maanaa bi ci alxuraan ci aaya yi jàng léegi léegi lan mooy aaya bi bi laa ilaaha illallah
fa man yafur bi taaxut da ngay njëkk a weddi xërëm yi dëgg moo tax balaa ngay def lu baax bàyyi lu bon ba pare ndax munoo nekk ci di def lu bon ba pare ne da ngay def lu baax munul nekk kon bàyyi lu bon bàyyi lu bon sax awlaa moo gën def lu baax ñun ñëpp buñ bàyyoon lu bon rek jàmmam ñeenteel bi mooy maana la ilaha illa allah wa hiya al imaanu billah wal kufru bi taaxut ñu jéem a xam maanaa u laa ilaha illa allah maanaa bi ñu jéem a xam sens bi laa ilaha illa allah lu muy tekki laa ilaha illa allah lan moo tax mu jóg laa ilaha illa allah lan la wundu laa ilaha illa allah lan la lan lay def ci gémmiñ gi muy génn dënn bi muy génnee lan la fa laa ilaha illa allah war a bàyyi mais maa la saf gis ngeen laa ilaha illa allah tey ñun ci làmb yi lañ koy jajatee mu ngi ci baar yi mu ngi ci seed seedee musique yi mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci baa mu ngi fu nekk fu nekk da ngay dégg ñu fay wax la la la la mu nekk nga koy dégg amul benn njëriñ tey parce que du dëgg parce que du dëgg ci dënn yi muy génne parce que du dëgg ci làmmiñ yi muy génne mooy suñ problème juróomeel mooy wilayatullahi taala tunaalu bil imaani wa taqwa mbokk yi kan moo bëgg fii yàlla farag moom ndax ci biir jumaa ji am na ku bëgg yàlla farag yow waaw leen nag xam ngeen lu ñuy def pour am loolu mooy gëm ko bil iman wilayatullah ku bëgg yàlla ànd ak yow nee na loolu tunaalu bil imaani ñu ngi koy amee ci ngëm wa taqwa ak ragal yàlla ku bëgg yàlla ànd ak yow rek inna allaha maal maal muttaqiin yàlla nee na maa ngi ànd ak ñu gëm ñi gëm àddina bi li ñuy bëri bëri yàlla ñi gëm la àndal kon ku bëgg yàlla ànd ak yow da ngay gëm yàlla subhanahu wa taala ragal ko nga ànd ak yàlla juróom benneel mooy nusratullahi taala wa riayatihi li awliyaihi duna aadaihi nañu yëg ne yàlla ndimbalam lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg day ñëw waaye ci ñan lay ñëw ci xaritam yi yàlla càmmuteefam lu mu yàgg-yàgg loo sonn sonn lu mu metti metti yëgal ne yaa ngi yaa ngi ci càmmuteefu allahu subhanahu wa taala képp ku gëm yàlla yëgal ne yàlla moo lay dimbali inna la nansuru rusulana wa man nasru illa min indillah te wa in tansurukumullah wa in yansurukumullah fala gaaliba lakum kon nañu yëg ne ndimbal du bàyyi koo fenn ci borom bi subhanahu wa taala te yàlla ndimbalam ñan la koy jox mooy way gëm yàlla yi yàlla ak péeteem fan la nekk mooy way gëm yàlla yi mbokk yi lii mooy dar sa tey boo amee ay njuum te ñu ngi koy jéggalu suñu borom asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu